Serigne soye Bumbake Serigne sëriñ soye bu mi ngi ganee àdduna bisub talaata juróomi fan ci wéru koor ci atum 1335 ci gàddaay gi talaata juróomi fan ci wéru koor ci atum 1335 ci gàddaay gi ci dëkk bu sell bële di bobu wa waajuram Serigne Touba Cheikhoul Khadim mi ci résidence surveillée mu tombé bisub mardi 26 juin 1917 mardi 26 juin 1917 ci dëkk bobu di njaareem le Serigne soye bu mbàkke Serigne Touba Cheikhoul Khadim feñe jamono di doomu soxna Mareema Jaxate ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moom sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim am na nag ko mbokkal Xadiim Rasuul ak kii di soxna Mareema Jaxate muy magam jo di sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke ibnu soxna Mareema Jaxate ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ak moom sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu soxna Mareema Jaxate ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sëriñ Suhaybu Mbàkke kenn rek la bokkal waajur wu jigéen muy sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke bi mu matee am aw tur nag sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul mi waajuram sëriñ Mouhamadou Diop Dagana la yónni woon ngir mu wutal ko aw tur moom sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke xamul itam kii di waajuram wu jigéen di soxna Mariama Jaxate ndax bi mu feeñee jamono ba am at tuuti la waajuram wa soxna Mariama Jaxate génn àdduna sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul mi waajuram wax ne nañ ko yit kii di soxna Xari Mbaar Sill mi nekkoon waajuru sëriñ Abdou Samad Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim doon sàkku ci soxna Xari Mbaar Sill boole sëriñ soyen bu mbàkke ak doomam jooju di cheikh abdou samat mbàkke ibnu xaadim rasul boole yor kii di sëriñ soyen bu mbàkke xamul waajuram soxna mariama jaxate ndax bi mu amee lu tolloog atum yàlla ci la waajuram wa génn àdduna di soxna mariama jaxate soxna mariama jaxate moom sax bisub cërëg bi mu génnee àdduna sëriñ tuubaa xaadim rasul mi ngi doon sàkku ci mag ñi ñu denc ko ci wetu soxna aminata loo ci guy texe keroog mi ngi doon xamal mag ñi di leen wax ne mariama jaxate mii de moog aminata loo mii ñoo yam wàccuwaay ñoo yam wàccuwaay googu khadim rasul nak doon wax mag ñi feñ na lol ci ñaari jëm yoy ndax bo jëlé ki di soxna aminata lo ñaari bant rek la am ak rasul muy cheikh mamadou mustapha mbake ak cheikh mamadou lamine bara mbake soxna mariama jaxate itim ñaari bant rek la am ak rasul muy serigne touba cheikh abdoulahat mbake ak ki di serigne soye bu mbake nga jëlat nak ki di soxna aminata lo ñaari bant yoy mu am ak rasul di cheikh mamadou mustapha mbake ak ki di cheikh mamadou lamine bara mbake cheikh mamadou mustapha mbake tok na khalifa general général des Mourides waaye Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ibnu Xaadim Rasul toogul xalifa général des Mourides waaye bari na lu mu bind lool nga jël kii di soxna Mareema Jaxate moo meññ itam kii di Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ak kii di Serigne Souhaïbou Mbacke waaye Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam toog na xalifa général des Mourides waaye kii di Serigne Souhaïbou Mbacke toogul xalifa général des Mourides waaye moom itam bari na lool lu mu bind nga jëlaat kii di soxna Aminata Lo ñaari bant yooyu mu ama Xaadim Mbacke ak Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke laataa ñuy xàmmee soxna Aminata Lo génn na àdduna ñu jël ma Mamadou Lamine Baara Mbacke jébbal soxna Awa Bousso ngir mu gimbee fa nga jëlaat soxna Mariama Jaxate ak ñaari bant yooyu mu ama Xaadimu Rasuul muy Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad ak kii di Serigne Soye bu Mbacke ñoom itam laataa ñuy xàmmee soxna Mariama Jaxate génn na lii di àdduna ñu jël Serigne Soye bu Mbacke jébbal soxna Xari Mbaar Sill ngir génn na àdduna nga jëlaat kii di soxna Aminata Lo jëlaat soxna Mariama Jaxate ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu tëddaale ca armeel ya xaadim rasul wax ne ñoom ñaar ñoo bokk wàccuwaay kon sëriñ soxna bu mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul kooku nag mooy waajuram di soxna Mariama Jaxate bi matee dal alxuraanul karim waajuram xaadim rasul moo ko dalal alxuraanul karim ci njaareem ginnaaw bu mu ko dalalee alxuraanul karim moom waajuram xaadim rasul la wooluwaat nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate jox ko ko moom sëriñ ngir mu jàngal ko alxuraanul karim bisub kero sax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim mi ngi wax sëriñ amsatu jaxate di ko wax ne nag joxuma la soin bu mii ngir nag lu olof njaay baaxoo di def ngir nit ki su amee doom ñu jébbal ko nijaayam waaye dama la ko jox ngir li ma def ci yow nga def ko ci soin bu mii sëriñ amsatu jaxate moo jàngal alxuraan nag ci di sëriñ soin bu mbàkkee ci tuubaa waaye booba nag ci daaray sëriñ amsatu jaxate boobu ku ñuy wax sëriñ alsaan jaxate ma nga fa woon di jàngale sëriñ alsaan jaxate moom nag lañ Sohaybu bu Mbàkke kon ci loxoy sëriñ Alsaan Jaxate la nekk ci kër nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate ba bind nag lii di kaamil bi waaye nag bi muy bind kaamil fekk fi waajuram fekk na waajuram nag génn nag lii di adduna ci atum 1927 kaamilam boobu nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke lañ ko jébbal ci tundoodi nijaayam sëriñ Amsatu Jaxate nag moo def loolu fopp kaamilub sëriñ Sohaybu bu Mbàkke jébbal magam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ci dëkk boobu di tundoodi bisub keroog Souhaïbou bu Mbàkke kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ma ngi koy xamal ne kaamilub Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke mi ngi nii kaamilub Serigne Touba Cheikh Salihu Mbàkke mi ngi nii kaamilub Serigne Souhaïbou Mbàkke mi ngi nii lii nag la ma seen waajur wa santoon ci ñoom ndax doon na ma xamal ne li nekk ci yow laa bëgg nga def ko ci ñoom gisatuma seen waajur wa nag di xaadim rasul yow mii nag yaa fi nekk seen waajur moo tax ma bëgg a fob seen kaamil yi jébbal la ko lool la Serigne Amsatu Jaxate waxoon Cheikh mu mu Mbàkke mi nekkoon magu ñett ñooñu nak mo len magoon waye mom bi mi bind kamilam ba kamilam di nopi. Khadim rasul mi wajuram mi ngi fi waye jamono joji nak ñaari rakam yi de serigne soy bu mbàkke ak serigne touba cheikh saliou mbàkke ñi ngi bind nak li di kaamil sëriñ amsatu jaxate bëggona xaar ba ñaar ñoñu bind ba pare mu fabando ñetti kamil yi rasul waye lata nak ñaar ñoñu di bind ba nopi la khadim rasul genn aduna lol mo waral serigne Abdullah hat mbàkke serigne touba cheikhul khadim te ko bët waye magam de cheikh mamadou mustapha mbàkke lañ ko jeppal bi sëriñ Souhaïbou mbake nak di jang ci ni nijaayam jojo di am Amsatu Jaxate bobu nak seen benen rak ja di serigne Abdou Samad mbake ibnu khadim rasoul ma nga fa waaye ñooñu nak ñoko ñëk bind kamil lool mo waral nak seen ñenti kamil yoy cheikh mamadou moustapha mbàkke jotandoo wu ca ginnaaw bu sëriñ amsatu jaxate joxe ñetti kamil yoy ba nopi la seen rakk ja nag abdou samat mbacke dogu bindub kami ñom ñent ñooñu ño nek ndo won ci loxoy sëriñ amsatu jaxate ginnaaw bu cheikh mamadou moustapha mbàkke jotandoo seen ñetti kamil yoy muy bu serigne touba cheikh lahad mbacke bu serigne touba cheikh salihu mbacke ak serigne soye bu mbacke cheikh mamadou mustapha mbacke nak mi nekkon seen mak ban leen nak ci daaray tundo di abu Dir ñu wey nak nekk nag ci loxoy sëriñ Ahmadou Muxtaar Jëng Guyaar boobu itam ma ngay jàngale alxuraanul karim ci daara jooju di tundoodi ginnaaw sëriñ Ahmadou Muxtaar Jëng ci ndigalul Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke jëlaat na leen nag jébbal leen sëriñ Habibu Mbàkke imaam ngir ñu wéel fa nag seenum njàngum xam-xam sëriñ Habibu Mbàkke imaam moom sax bisub keroog bi leen ko seex Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke di yóbbu ñeenti doomu aadama la fa yóbboondoo muy Cheikh Abdou Lahat Mbàkke ibnu sëriñ Touba Cheikhul Xaddim sëriñ Touba Cheikh Saliwu Mbàkke ibnu sëriñ Touba mbàkke ibnu serigne touba cheikhul khadim ak ku wax serigne abdullahi jaxate mom mo leen ñeenteeloon mu teg leen ci loxoy serigne habibu mbàkke ngir ñu wéel fa seen jangum xam-xam ci seen ndegalul Mustafa cheikh mamadul mustafa mbàkke ci loxoy serigne habibu mbàkke imam nak lañ mujjé jangé nak li di xam-xam ñu delsiwaat nak ci seen loxoy mak cheikh mamadul mustafa mbake serigne soye bu nak nag ak cheikh mamadul Mustafa mbàkke ba ci atum 1941 ci 1941 nag la dem nag ci dëkk bu ñuy wax mbam jigan nek fa nag di liggéey lu fa ñoree wala lu mu am yit magam cheikh mamadul moustapha mbàkke ndax moom la defub sëriñ te moom lay xoole waajuram xaadim rasul ci wetu mbaam jigaan googu nag am na dëkk bu ñuy wax lumbel sayer ma nga fa foofu nag la sëriñ soin bu mbàkke ibnu xaadim rasul nekkoon di liggéey ba ci atum 1942 mu dem nag ci dëkk bu ñuy wax kàbbu gay ku ñuy wax sëriñ móori gay moo ko fa dogaloon ay tool mennum at rek la fa sëriñ soin bu mbàkke bay ci atum 1945 dëkk bu ñuy wax bukki amoon na fa ay tool ci atum 1949 amaatoon na ay tool itam ci dëkk bu ñuy wax Mbaraama Diop Mbaraama Diop bii sax ci atum 1954 la bàyyi tool yooyu ci at moom itam la ko jox ku ñuy wax Serigne Mor May ngir itam mu féete fa ci atum 1975 am na dëkk bu ñu doon wax Touba Mouride itam kii di Serigne Soin bu Mbacke amoon na fa ay tool itam di fa bay ci atum 1971 nag la gor ab quartier ci Touba ñu koy wooyee Touba Ñanka Touba Ñanka nag moo tolloog nag fii foraasu Aynu Rahmati bi nekk. nekk muy forage bi def ndox mu neex mi ba tey ñi xamul foofu moo taqaloog université bi ñuy wax université baylaat ba tey itam moo dend ak fi ñuy wax jumaay sëriñ Cheikh Saliou Mbacke ci corniche su Ndiouga Kébé bi foofa bi ko sëriñ bu Mbacke di gor ci atum 1971 ñànka lañ ko doon wax waaye sëriñ bu Mbacke moo ko tudde Madiyana roy nag turandoom wa ci dëkk boobu mu nekkoon féete woon fa ñu ko daa wooye Abo borom Madiyana wala Abo Madiyana foofu itam maison daaray alxuraan la fa defoon di fa jàng ak di jàngale sëriñ soin bu mbàkke nag sañcul ab dëkk waaye bari woon na nag ay dëkk nag yu mu jaar ngir doon fa liggéey ak kër gi mu nekkoon ci Touba ba génn fi àdduna te denc ko sax ci péncum boppam moomu di kër gi ñuy wax kër sëriñ soin bu mbàkke waaye kër googu di kër sëriñ soin bu mbàkke di péncum sëriñ soin bu mbàkke ma wax leen nag li ci jotale sëriñ soin bu mbàkke ibnu xaadim rasul bi ñuy tuut tànk moo magam ja sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ak magam ja sëriñ Touba ni ñu nekkee mag seenu tàggoo bariwul woon dara daanaka ñoom ñett la sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi seen waajur yébbalandoo sëriñ Amsatu Jaxate ñoom ñett itam lañ fabandoo benn bés seeni kaamil yébbalandoo seen mag ja Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ñoom ñett itam mu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke fabandoo ci benn bis jébbal sëriñ Habibu Mbàkke imaam ñoom ñett itam saa sone ci seenug dund ñaari foo masaa gis kenn ki danga gis ñaar ña ca des kon seenug tàggoo ci diirub li nekk bariwul bëgg a gis taalibeb sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad ba ci taalibeb sëriñ Soye bu Mbacke ku la ci léeralut ne la ci diw laa sukk jébbalu pour nga xam ko dana nekk lu jafe lool njaboot gi war nañoo sàmm loolu bu baax a baax a baax a baax ndax ñett ñooñukat kat daanañ ko jëfe ba tax na itam seeni taalibe itam feeñ na ci lool ndax xam liñ bokkoon muy sëriñ Touba Seexul Xaddiim ak njaxate ba tey àndum ñett ñooñu fii sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke dëkke ci jumaa ji kër Cheikh Abdou Lahad Mbacke la moo ko mujj bàyyee sëriñ Tuuba Seex Saaliwu Mbàkke ba tey itam fee sëriñ soye bu Mbàkke dëkke di fiñ ko denc kër ga ca cosaan Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ibnu sëriñ Tuuba Xaadim Rasuul moo ko laajoon Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke booba bëkk néeg bu ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lamine Gay Firdawsi la fa Xaadim Rasuul dëloon moo fa wéen di nekk sax ba ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag yore ndi kër ga sëriñ Mouhamadou Lamine Gay moom Firdawsi la nag doon sàkku kër ga mu di ko xamal ne kër gi dañ ma koo dénk sa waajur wa xaadim rasul moo ma ko joxoon waaye jamono ji nag dama ko sa mag ja cheikh mamadul moustapha mbàkke ginnaaw bu ko cheikh abdoulahad mbàkke laajee nag kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke jébbaloon kon lii moo ci jottalee cheikh abdoulahad mbàkke cheikh abdoulahad mbàkke ak sëriñ touba cheikh saliou mbàkke ak kii di sëriñ soye bu mbàkke nag daanañ def léeg-léeg suñ ñëwee touba nekk fa wala ci ñoom ñetti tim ku fi ñëw touba féete fa waaye nag kër gi li ci moom ko ci atum 1945 bi seen mag ja Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag génnee nag lii di àdduna boobu sëriñ Soye bu Mbacke mi ngi foofu nag ci mbaam jigaan ci tool yooyu mu amoon denc nañ mu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ginnaaw bu mu génnee àdduna ba mu am ñaari fan wala ñetti fan ndaw li doon wër sëriñ Soye bu Mbacke doog a xam ne mi ngi ci tool yooyu di mbaam jigaan ginnaaw bi nag lañ ko yëgal ne sa mag mu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke génn na àdduna fan yi weesu ci la nag sëriñ Soye bu Mbacke bàyyi nag ci dëkk boobu nag di mbaam jigaan Touba ngir fekke si nag bi bisu magam ja ci ginnaaw bu mu génnee àdduna te moom yëgul ginnaaw bu mu ñëwee Touba nag ci la dogu ne su génnatul Touba ba lu mel nii nag di xew ginnaawam te yëgul tinul duutul am ci booba itam ci la ñëwee nag toog nag ci kër googu nag di kër Serigne Soye bu Mbàkke ci penc moomu daat fay taxawal nag luñ tudde daaray alxuraan daaray alxuraan jooju nag ci la nekkoon nag di liggéeyaatale xaadimu rasuul ba ni mu génnee àdduna ci atum 1991 kon li ko six ba nim génne àdduna ci atum 1991 Serigne Soye bu Mbàkke génnul Touba ngir xew-xew booba amoon ginnaawam di magam bu génn àdduna te yëgu ko wala bu génnee Touba itam fu mu dem itam du fa fanaan guddi guddi illaa Touba ñu man koo xayma ci diir bi mu toog génnul Touba wala su génnee Touba itam fu mu dem du fa fanaan ci diirum ñeen fukki at ak juróom benn ci diirum ñeen fukki at ak juróom benn yooyu nag la toog Touba taxawal nag daaray alxuraan di fa jàng ak di jàngale na lool ay kàngam yu ñuy coow ci kër googu lañ génne muy pencum sëriñ soye bu mbàkke wala ci loxo yi sëriñ soye bu mbàkke daara jooju mu taxawaloo nag di daaray alxuraan ja ñii nag la fa njëkk a jàngal alxuraanul karim ci pencum boppam moom moom sëriñ soye bu mbàkke doomam sëriñ ahmadu mbàkke di kim faye xaadim rasuul ñu koy wax sëriñ seex say mbàkke moom sax moo toog toogaayam jamono jii ñaareelu nit bu àndoon ak sëriñ cheikh say mbàkke mooy ku ñuy wax sëriñ abo mbàkke ibnu cheikh Abdoulahat Mbàkke nag njëkkoon naa am am sëriñ Abo Mbàkke sëriñ Abo Mbàkke mooma nag la sëriñ bu Mbàkke jàngal foofu ñetteelu doomu aadama nag bu bokkoon ci keroog bi mu taxawalee daara ja te njëkk faa jànge mooy ku ñuy wax sëriñ Seexuna Mbàkke doomu sëriñ Abibu Mbàkke imaam la woon ak ku ñuy wax sëriñ Souhaïbou Fall doomu sëriñ Moustapha Fall la sëriñ Moustapha Fall nag moo nekkoon taawu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ñeenti doomu aadama yi nag la sëriñ Souhaïbou Mbàkke njëkk a bu mu taxawalee daara ji muy sëriñ seex say mbàkke di doomam sëriñ aboo mbàkke di doomu sëriñ tuba seex abdulahat mbàkke sëriñ seexuna mbàkke di doomu sëriñ bu mbàkke imam ak sëriñ soy bu faal di doomu sëriñ mustapha faal moom maam cheikh ibrahima faal lamp baabul muridina ñeent ñooñu nag la fa njëkk a jàngal ginnaaw bi nag la mag ñi nag wéy nag di ko jox seenu njabootu daara ji itam nag wéy di màgg ba tax na itam nag lii di yoonu murit ñiw na lool ci kilifa yi kuñ ne la jaarul ci péncum sëriñ bu mbàkke doomu xaadim rasuul bi ko yàlla kàngam yooyu ak doomu soxna yooyu jaar nag ci daaray sëriñ soye bu mbàkke ñu man cee ràññee sëriñ fàllu mbàkke imam ibnu cheikh abdou xaadir mbàkke ibnu xaadim rasul sëriñ fàllu mbàkke moom sax moo nekkoon imaamu guy masaalikul jinaan ci ndakaaru sëriñ fàllu mbàkke moom it moom lañ julli korite ak tëbaski ci dëkk bu sell bii di tuubaa jaar na ci loxoy sëriñ soye bu mbàkke ibnu xaadim rasul sëriñ jiili mbàkke ibnu sëriñ tuubaa cheikh abdoulahat mbàkke ibnu xaadim rasul moom itam jaar na ci loxoy sëriñ soye bu mbàkke jiili mbàkke moom moom lañ jox université bu Touba sëriñ Moodu Abib Mbàkke bu sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër moom itam jaar na ci loxo sëriñ Soye bu Mbàkke ginnaaw bu mu jógee ci loxoy sëriñ Soye bu Mbàkke sëriñ moo ko yar itam ba fab doomam jébbal ko muy soxna Fatja Mbàkke bintu sëriñ Soye bu Mbàkke kii di sëriñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdou Khader Mbàkke mi yor kàddu xalifa général des Mourides itam jaar na fa ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñu jaar ci loxoy sëriñ Soye bu Mbàkke waaye ci gàttal dañ leen doon tuddal ñii waaye ku jaar ci loxoy sëriñ soin bu mbàkke tey buñ ko doon lim tuubaa gépp la wax ne jaar nañ ci loxoy sëriñ ku fa jaarul itim ka na la daaray sëriñ soin bu jooju ña fa jaar takku na lool loolu itim taxoon na sëriñ soin bu mbàkke nag demoon na ba daara jooju nga xam ne moom moo wuufoon péncam mi donga ya fa nekkoon macha ba taxoon na nag kii di sëriñ soin bu mbàkke nag goraatoon jeneen daara ci atum 1971 mu nekk ci ginnaaw daara jooju di ñànka muy fi tolloog université Cheikh Abdoulaye at bi tolloog nag fi forage ndox mu neex mi nekk di ay nu raxmati dëkkoo ñànka daara jooju itam bari na ñenn ci dongo yi itam foofu la ñu jaar lépp rek sëriñ soin bu mbakki jublu ci liggéeyal waajuram xaadim rasuul ci alxuraanul karim ku ñuy wax baay sëriñ géey la joxoon daara jooju muy daaray ñànka mu nekk fa itam di jàng ak di jàngale goraatoon na jeneen daara itam ju ñuy wax daaray baay omar sëy ñaari daara yii nag muy daaray bàyyi sëriñ géey ak daaray baay omar sëy ñaare dong yi gënoon nag ci daara ji foofu nag lañ yóbbu itam ngir nag ñu gën a mën a mokkal nag li di alxuraanul karim loolu itam tax na moom sëriñ soe bu mbàkke itam mu taalif ay téere yoo xam ni jullit yi ak murid yi itam dañ ciy jariñu a a baax ndax na mu a xam nag mu taalif nag moom sëriñ soe bu mbàkke mu sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu mën cee ràññee téere bu ñuy wax xuratul xayni am na beneen téere xam-xam bu mu bindaan moom sëriñ soe bu mbàkke ibnu sëriñ Serigne Touba Seexul Xaddiim ñu koy wax buqyatul muridin buqyatul muridin boobu nag Serigne Souhaïbou Mbacké ibnu nag la ko bind ba tey Serigne Souhaïbou Mbacké ibnu Serigne Touba Seexul Xaddiim nag taalifaatoon na beneen téere téere boobu nag ñu ngi koy wax fusoolul taqawuuf ak yeneen ak yeneen yu Seexul Xaddiim taalif lépp rek ngir jagleel ko julli di rawatina taalibey Seexul Xaddiim yi ndax moom yarkat la woon jàngalekat la woon jàngalekat googu mu nekkoon ak yarkat googu mu nekkoon te féete woon ci dëkk bu sell bi di Touba ci pencum moom ñu koy woy di pencum Serigne Soye bu Mbàkke taxoon na itam képp koo xam ne ni nekkal nga fi ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadiim di ab xalifaam Serigne Soye bu Mbàkke itam defoon na la ab sëriñ di la roy def la itam mag ndax ginnaaw magam ja Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke noonu itam ne la toppe woon Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke def ko mag def ko Serigne ba tax na Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom sax bi mu génnee àdduna ci atum 1968 Serigne Soye bu Mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee ginnaw cheikh mamadou fadal mbak itam noonu la topé won magam ja ndax ño bok soxna mariama jaxate muy serigne touba cheikh abdullah had mbake nangul ko itam diko ko liggéeyal magam joju di serigne touba cheikh abdullah had mbake sax bim genné aduna serigne soye bu mbake mo wolu serigne abibu mbake imam ak kuñuy wax serigne mohammed haza si nekkoon imam itam ci touba belal ngir ñu taxaw magam joju di serigne touba cheikh abdullah had mbake ngir ñu waajale ko ci dëkk bobu di touba belal ginnaw buñ ko waajalee ba nopi nak lañ ko indi ci dëkk bu sel bi di touba rakkam xam nga cheikh abdou xaadir mbàkke jullee ko ginnaaw cheikh abdou lahad mbàkke ñoom ñaar moom benn lañ woon ba tax na itam lu takku ci njabootu cheikh abdou xaadir mbàkke sëriñ soye bu mbàkke moo leen jàngal moom cheikh abdou xaadir mbàkke moomu ibnu sëriñ tuba seexul xadim sëriñ soye bu mbàkke ibnu xaadim rasul itam moo ko taxawu ginnaaw sëriñ tuba cheikh abdou xaadir mbàkke mu fab léppam nag jébbal sëriñ tuba cheikh salihu mbàkke moom sëriñ soye bu m ibnu xaadim rasul ci xilaaf ak sëriñ tuba cheikh salihu mbàkke sax la génne àdduna ginnaaw bu ñu atum yàlla ba tax na itam lu takku ci njabootuk sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke moom ñoom ñoo bokk fu ñu dëkk te itam ci xilaaf ak sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke la génnee àdduna muy ci atum 1991 yeneen doomu baayam yi mu bokkal xaadim rasul ñooñu itam kasaalika ndax sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ibnu sëriñ Touba Cheikhul Xadim ñu takku itam ci njabootuk borom dër bi sëriñ Souhaïbou Mbacke moo leen jàngal moo leen yar Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbacke ibnu sëriñ Touba Cheikhul Xadim xaadimu rasuul ñoom ñaar moom ñoo defandoo lépp ndax ginnaaw bu soxna Mariama Jaxate génnee àdduna la sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sàkk woon ci soxna Xari Mbaar Silla ngir mu boole sëriñ Suhaybu Mbàkke ak Cheikh Abdou Samad Mbàkke mosam yor Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xadim Rasuul moom itam kasaalika benn lañ woon ay xarit lañ woon ba tax na bi sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim génnee àdduna ci atu 1991 Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xadim Rasuul moo ko taxawu moo ko jullee noonu mu ko defee woon ci ay doomu baayam yu góor itam noonu la ko amale woon ci ay doomi baayam yu jigéen mbooleem bintu xaadim rasuul yi ñu ci takkoo takku sëriñ soin bu mbàkkee tudde na leen doom moom sëriñ soin bu mbàkke foofu mu nekkoon nag di péncam mi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim moo ko sanc tudde woon ko daaru raxmaan ba tax na itam lu ëppoon ci naar yi wala gan ñi nga xam ne ni ay sërif lañ suñ masaa ñëw itam foofu la leen di dalal kon bërëb la bu seexul xaadim fonkoon bërëb boobu itam seexul xaadim daana fa nekk lu takkoo takku ba tax na ñaari doomam rasul ak cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu xaadim rasul foofu la ñu dalee alxuraanul karim kon pàkk boobu bokk na ci pàkk yi nga xam ne ni doomu aadama yi saa su ne dañ faa war a dem di ko ziar ba tax na itam kii di sëriñ Suhaybu Mbàkke pàkk boobu ñu baree bari fekk nañ ko fa ci wàllu ay kilifa ñu mën cee ràññee sëriñ Haadi Touré bu Faas Touré di ñëwee ci dëkk bu sell bii di Touba itam demoon na ziyaara ji pàkk ba ziyaara ji itam kii di sëriñ Mbàkke daana dem ca penc ma ziyaare ko ziyaare itam kii di sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul sëriñ Abbas Sàll bu lugaloo itam bi mu ñëwee Tuuba dem na itam ca penc moomu ziyaare ko ziyaare itam sëriñ Suhaybu Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul ak yeneen nag yeneen i kilifa yu ñëw na ci penc moom di pencum Daar Rahman ñu gën koo xam ci pencum sëriñ Suhaybu Mbàkke ñëw ziyaare si penc ma ziyaare sëriñ Suhaybu Mbàkke buñ doon lim kilifa ya fa jaar ñëw ziyaare si ko daa juum waaye ci gàttal rek ñett ñooñu ku xam surtout ci réew mi ba tey sëriñ soye bu mbàkke ku fonkoon alxuraanul karim la ba tax na daana ko jàng daana ko jàngale fonk googu mu fonkoon alxuraan ba tax mu ko daa jàng ak di ko jàngale ma wax leen nag lan moo ko waraloon ndax dafa amoon bis bi mu nekkee ci daara nijaayam jooju di sëriñ xamsatu jaxate ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim woolu woon sëriñ xamsatu jaxate ba mu ñëw mu di wax ne soo demee nga indil ma soin bu te ànd ak moom ginnaaw bu sëriñ xamsatu jaxate ñëwaatee ci dëkk bu sell bii di tuubaa jël si sëriñ soin bu mbàkke ngir yóbbuwaat ko njaareem ci loxoy waajuram xaadim rasul njaareem goog ginnaaw bu fa sëriñ soin bu mbàkke ñëwee nag àndoon ak nijaayam sëriñ xamsatu jaxate sëriñ tubaa seexul xaddim yanoon na xam ne ni bu ci sëriñ bu jàll ca ga ca des sëriñ bu mbàkke rek ibnu xaadim rasul yanu gaal ga ba ñu nag ci genn kees sëriñ tubaa seexul xaddim nag wax nag kii di sëriñ soin bu mbàkke nag mu yennee ko gaal googu nag mu yan woon ginnaaw bu mu ko yennee ko nag ku baax ki sëriñ tubaa Tuubaa Seexul Xaddiim laajoon na Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke xam nga lan moo taxoon ma yanoon la nag lii di gaal gi Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke nag tontuwul woon ci jataay ba waaye nijaayam Sëriñ Xamsatu Jaxate moo ne ko Mbàkke Bàll soo ko ko xamalee da dana baax ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di wax Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke di ko wax ne damaa bëgg nga fonk alxuraanul karim damaa bëgg nga fonk alxuraanul karim ba muy ñetti yoon ca la ko waxee itam te jataay ba na ko Suhaybu heure boo toogee tey itam del jublu penku miinoon nañ bu baax a baax a baax toogaayub sëriñ soye bu mbàkke ibnu xaadim rasuul fekk ko mu toog te jubluwul penku niiw na lool ba tey seexul xaadim di ko wéy nag di yokk ci jataay ba di ko wax ne soye bu bala ngaa defati dara deel wax bisimilah ca jataay boobu ba tey ku baax ki tubaa seexul xaadim mi ngi doon wax doomam jooju di sëriñ soye bu mbàkke ibnu xaadim rasuul di ko wax ne sa kawar ga itam bu ko bàyyee te mu sëq loolu itam taxoon na kii di sëriñ soye bu mbàkke fukki fan ak juróom yu ne daana watu ca jataay boobu nag ba ñuy tàggutoo la ko sëriñ tubaa seexul xaadim joxoon way xanjar ja way xanjar joju nak ku sheikhul khadim masaa dalal alxuraanul karim ci la la dalal alxuraanul karim mu sheikh mamadou mustafa mbake sheikh mamadou fadal mbake ci gàttal dal kuñ wax na seexul xaddim dalal na la alxuraanul karim ci way joojee la la dalale alxuraanul karim way joju nak ci loxoy serigne soye bu mbake ibnu khadim rasul la mujj te jotaay bobay itam mo waralon mu jox ko ko xam ku delu ci kenn ci njabot gi da gis ne mo denci denc way ja waaye way ja mom mi ngi ci loxoy wa keur serigne soye bu li nak moom moom moo tax sëriñ Souhaïbou Mbàkke fonkoon alxuraanul karim ba tax na yëmaliwu ko woon ak dara ginnaaw bu magam ja di waajuram wa génnee àdduna di seex Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul ci 1946 nag sëriñ Souhaïbou Mbàkke taxawal daaray alxuraan ngir yeesal nag ndigal la ko waajuram wa waxoon di Xaadim Rasuul ndigal loolu mu doon yeesal di ndigalul waajuram Xaadim Rasuul ci fonk alxuraanul karim tax na itam nag yoonu murit bari na mbàkke sëriñ soye bu mbàkke léppam weeru koor la ci la feeñ jamono mu juróomi fan yi weeru koor ga ci la génn àdduna itam muy fukki fan yaag juróom ñeent ci weeru koor gi kon moom ci weeru koor la feeñ jamono ci weeru koor la génn àdduna weeru koor googu nag sëriñ soye bu mbàkke ku ko fonkoon la ba tax na itam tuubaa ñi ko miin bu baax a baax a saa bu dog jotee danañ dégg sone rek sëriñ soye bu mbàkke ga sone di wax ne dog jot na ci tuubaa ak li waxtu dok ak seen waxtu nak ndax bobu kat rajo yombul waye sunu rigi nag daana li doomu adama yi ba tax na itam ñu bare bare bare bare ci Touba ba ni sax ci la ñuy sukkandiku ndax sunu riga mo leen di wax ne dog jot na sonori gogu nak serigne soye bu mbacke moko indi won Touba moko fi defitim ci sunu sonori gogu nak laata mu fi nek ci pencum serigne soye bu mbacke man nañu wax ne dañ da def ay pexe rek wala di tëggantu ay weñ ngir wax julit yi ne dog jot na mu am bis nak serigne soye bu mbacke wolu ko ñuy wax mbay genn dip ap électricien ñu bari miin nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba ngir di ko wax nag mu dem Ndakaaru fekk fa nag ku ñuy wax dàmbocc ngir mu wutal ko nag loo xam ne nii da heure bu sonné danañ xam ne dog moom waa Touba danañ yëg ne jot na Baye Dame Mbodj moomu nag mooy waajur suñu nattangoo Aminata Mbodj kon Baye Dame Mbodj moo jëndoon sonnerie gi fi nekkoon di sonnerie gi daa wax ci Touba ne dog jot na sonnerie googu nag mujj gi itam nag Touba màggoon na ba sonnerie gi nag dajul Touba njuga kebe nag moo jëndaatoon geneen sonnerie gi fi nekk sonnerie googu nëgëni kon sonore gii nekk ci pencum sunuy soen bu di sone ne dog jot na ginnaaw gu njëkk ga bàyyi daa mbooj moo ko jënd waaye gii fi nekk nag jamono jii nag Ndiouga Kébé di milliardaire Xaadim Rasuul moo ko jënd ci ndigalul sëriñ soen bu Mbàkke ngir muy wax jullit yi ne dog jot na sëriñ soen bu Mbàkke nag am na ay turandoo yu takkoo takkoo takku ci yoonu murit wi ndax ñi bokkal Xaadim Rasuul ñu ci baree baree bari itam tudde nañ ko doom cheikh yi toppoon ba tax na ay turandoom itam am na soin bu am na ay turandoom yu ñuy wooyee aboo waaye nag li ëpp ci ay turandoom aboo lañ leen di woowee moom sëriñ soin bu mbàkke sëriñ soin bu mbàkke itam ba tey bari na itam luñ ko tudde ci miléem ay de santé ay jàkka muy bërëbu jullikaay ay centre commercial ay école ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuñ tudde sëriñ soin bu mbàkke ibnu xaadim rasul moom sëriñ soin bu mbàkke ko amaloon njariñ nag lii di askan wi la amal njariñ googu mu amaloon njariñ nag askan wi tax na itam cheikh si ñu ci bare bare bari fab nañ seeni doom tuddee ko ko ñu ci baree bare itam foboon nañ seenu njaboot jox ko ba tax na itam am na ay cheikh yu nekk foofu ci kër sëriñ soye bu mbàkke ñu man cee ràññee sëriñ abdou wahab diop sëriñ masamba diop saam ak ku ñuy wax sëriñ soye bu jenn ibnu sëriñ baara jenn ibnu cheikh isaa jenn sëriñ laay diouf ibnu sëriñ ceerno diouf lambaay ibnu sëriñ aline diouf lambaay sëriñ may amar ibnu sëriñ ibnu amar sëriñ soye bu faal ibnu sëriñ mustapha faal ibnu cheikh yeneeni cheikh yoo xam ne ni ci kër googu la ñu sukk jébbalu ca kër googu la ñu yaakaar ngir jëmmi doomu xaadim rasul boobu di sëriñ soye bu mbàkke moom sëriñ soye bu mbàkke moom ginnaaw bu mu bindee lu takkoo takku ñu takkoo takku itam bind nañ jëmmale ci moom ndax soo demee ci téere bii di xarnu bi cheikh mu Ka fi muy tudde lenn ci doomu seexul xaadim itam ma nga fay tudd turam soo demee itam ci téere bii di saawu sàkkooru jéeri ji mbooleem fu cheikh Moussa Ka di tudde njabootu xaadim rasul gi itam ma ko fay tudd seere yu takkoo takkoo takku moom doomu seexul xaddim bii di sëriñ Souhaïbou Mbacké yal nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram ci darajay waajuram woowu ko yar di soxna xari mbaar sill soxna xari mbaar sill moomu nag moo yar sëriñ Souhaïbou Mbacké ginnaaw bu waajuram wa soxna Mariama Jaxate génnee àdduna ci ndigalul xaadim rasuul ci li ko dale ci atum 1918 ba ci atum 1988 ci atum 1988 boobu nag la fi soxna xari mbaar sill bàyyi ko ci at moom nag lay doog a ñàkk nag waajur sill kii di waajuram di soxna xari mbaar sill moom la ko seexul xaddim waxoon ne boole kook seex abdou samat mbàkke boole yor kon kii di sëriñ soin bu mbàkke soxna xari mbaar sill la xam soxna xari mbaar sill moom nag mi ngi génn àdduna bisub altene benn fan ci weeru koor ci atum 1408 ci gàddaay gi altene benn fanu koor ci atum 1408 ci gàddaay gi mu dëppoog bisub lundi 18 avril 1988 lundi 18 avril 1988 sëriñ soin bu mbàkke nag doog a xam ne mi ngi doog a ñàkk waajur ndax soxna xari mbaar sill dem na soxna xari mbaar sill moom nag sëriñ soin bu mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee moo ko jébbal boroomam ci armeer yu mag yi soxna xari mbaar sill moom mu defoon waajur kii di sëriñ soin bu mbàkke itam tuddee na ko doom ndax soxna xari mbaar mbàkke mi ngi fi bintu sëriñ soin bu mbàkke cheikh abdou samad mbàkke moom mu bokkaloon soxna xari mbaar sill itam sëriñ soin bu mbàkke itam tuddee na ko doom ndax cheikh abdou samad mbàkke soin bu mi ngi fi kon ku fonkoon waajuram moom woowu la ku dëdd la woon moom sëriñ Souhaïbou Mbàkke ku nii woon ab dox la moom sëriñ Souhaïbou Mbàkke dëddu googu mu dëdd woon adduna tax na itam lenn loo xam ne ni mbirum adduna la amulu ko woon solo loolu itam tax na lenn ci jëfi àdduna yi mënoo koo tudd lu tudd sëriñ bu Mbàkke ndax yitteelu ko woon képp kum yar itam ci loolu la la tàggat ci loolu nag la sax ba nim génnee adduna ci atum 1991 ci feebar bu ko tëral doomu seexul xaddim bi ak soxna Mariama Jaxate di sëriñ Souhaïbou Mbàkke na guddik ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor ci atum 1411 ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor ci atum 1411 ci gàddaay gi mu dëppoog vendredi 5 avril 1991 vendredi 5 avril 1991 ci kër googu mu féete woon ci Touba di pencum Serigne Souhaïbou Mbacké ci xilaaf ak magam Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacké moom Serigne Souhaïbou Mbacké ay atam nag tolloon ci juróom ñaar fukki at ak ñeent rakkam ja cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasul moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci péncum boppam ci teewaayu nag murit yu takkoo takkoo takku ci yoon wi moom sëriñ soen bu mbàkke ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ ahmadu mbàkke mim waa waajuram wa xaadim rasul ñu gën koo xam ci sëriñ cheikh say mbàkke moo ko wuutu ci le 5 avril 1991 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ ahmadu mbàkke te ñu gën koo xam ci sëriñ cheikh say mbàkke moom sëriñ soen suñ borom yàggal te guddal aw fanam ak mboolem ay rakkam yu mu séqal sëriñ Souhaïbou Mbàkke suñ borom am na ko man na ko yàlla na ko def sëriñ Souhaïbou Mbàkke nag am na bis buñ ko daa fàttaliku ci li ñu tuddee ak màggal ndax ci atum 1998 lañ njëkk a fàttaliku kii di sëriñ bu Mbàkke ci li ñu tudde ak màggal màggal googu tim nag amul woon bis fixe njaboot gi dañ daa def rek heure buñ ko jekkoo ci at mi màggal ko màggal googu tim guddi ak bëccëg la daa doon noppi nag bés bi ne léegi kat ci juróomi fan ci weeru koor lañ koy fàttaliku ndax bis boobu moo dëppoo woon ak feeñuk jamono sëriñ soin bu mbàkke ci atum 2006 ba nag ci la njëkk a fàttaliku sëriñ soin bu mbàkke ci màggal ko ci juróomi fan ci weeru koor màggal gi nag ci lañ ko jëlee ci guddeeg bëccëg tuxal ko rek léegi ci bëccëg kon ci atum 2005 ba nëgëni ñi ngi fàttaliku sëriñ soin bu mbàkke juróomi fan ci weeru koor mu dëppoog bés bi mu feeñoon jamono ñu di ko fàttalikoo nag ci pénc moomu ñu ko denc di pénc pencum sëriñ bu Mbàkke te xaadim rasul waajuram goroon ko tudde woon ko daaru raxmaan ci foofu la ñuy fàttalikoo sëriñ bu Mbàkke ñuy ñaan ci doomu xaadim rasul ba kamu faye woon abo madiyana ñu ko daa wooye sëriñ bu Mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal te yokku ay leeram te taas ñu ci barkeem te lii di jafe-jafe réew mi yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey abo madiyana amin